Yeah. maqaama bu fukkeel la. bu ñeen fukkeel la. comme ni ñu xamee maqaama xaasira foo ko fekk rek fukkaahiya lay doon. kon maqaama bi xam nga fi mu jëm wàllu fukkaaha la. wala maqaama bu doyoo doyoo waar la. abu zeydin ak jabar ji. ñoo lal plan pour naqaadi ju xam ne ju naya naya naya la mm. waaye ne dañoo jotee mm. ku jëma kan flow bu ñaaw ñaaw ku nekk lu bon lu ne rek mm. wax na ko borom dago ju nekk waaw ku nekk wax lu bon ne morom ma xale yi joxul leen dara te dëkkee jàmbat ñaari dinaar képp la leen jox te de jàmbatu tëju ba lëgëy <laughs> mu ne axbara xam na na alxaarisu xaaris ibnu Hammaam Haaris mm. mooy xamle mm. qaal mu ne admaatu dogu woon naa mm. ak Tabriz a min Tabriz a tukkee ci dëkk bu wax Tabriz fii na nabat waxtu wam becc ngalee bi dalili ci aji toro wala bi si ak aji tedd dama nekk Tabriz muy dëkk bu naqadi mm. naqadi boo xam ne ci ñëpp la ak su waa ka doon war a mënal ko loolu sax mm. boppam da koo doy soxla mm. bi loolu amee nag ma ne man daal li ma xam mooy fii gental kon fii dama fay bàyyi ko ma dogu ne dama fay bàyyi ko waxalat te mu fiya minal mu jiiri ci aje xettali wal mu jiir ci ak aje maye ku lay làq nga ba nga mujj ci looy ragal amuloo ko ku lay dimbale ba nga jot ci loo bëgg amuloo ko mm. ndax dëkk bi ni nga xam la tëjoo rek mm. waxala te mu féex men mu jiwi ci aji xettali aji làkk mm. <coughs> wala mu jiit ak aji maye fa bay naa ana diggante baa man fi adadi ubati maa ngi ci xadu waajaay wartiyaadi soxbati ak sàkku àndandoo ci biir ma nekkee ci waajaay wi ndax itam ba waa réew ba fokk si nga bàyyi xel nooy mm-hmm. wala ñooy ànd mm-hmm. bi ma nekkee ci waajaay yooyu mm-hmm. alfaytu fekk naa biha ci tabriz tabriz ci la damir fo asmaawal amakin wal buldan dañ leen a jigéenal alfaytu fekk naa biha ci tabriz aba saydin abu saydin ya may kolik soroji dajee naa fa abu multafan mbir moom mu daaje lambayoo mm. bi kisayin ci mbàjji mm. mu ngi laxasoo ak mbàjji nag du ñoo dajee mm. wa muhtafan te de ku ñu peegee bi nisayin ci ay jigéen te bu ay jigéen a ko wërin nag fasaaltu woo an xat bi ci mambare ma luy mbiram wéy ay na ak jëm fan yatrubu lay jublu lay dem maa sir bi ànd ak man a weewa celoore mm. ak jigéen ñi nga xam ne foo jëmal ñoom mm. way laay naa jëm fan mm. yadrubu lay dem maa sirbi yaar nag mbooloom nagi jaalu mooy mbooloom jigéenam mu <coughs> ne fa aw ma aw mu de joxañ ilam raatin jëm ci jigéen minoon na ci ñoom mu am kum joxañ ci ñoom bahirati sufoori ku daa ji not ci taal mu ne kim joxañ nag xam naa jong ma la ku ko gis dana ko bëgg hmm. ku daa ji not ci feeñ waaye mooy ku taaru hmm. zaahiratin nufoori ku daa ji feeñ ci fo hmm. foñu zaahiratin nufoori ku daa ji feeñ ci foñu waaye da nga xam du nit ko am jàmmin nag wa qaala mu ne ma tazawajtu takkoon naa haasi ndaw si bi tuuti sa nii ngir na ma wéttale mm. fil xurbati ci tumarange gi mm. wa tarxada te mu fóot mm. xan nii ci man xasafal osbati ñëgas ak dund ak ñàkk jabar dama ñëw amu fi kenn ma dama koy takk pour mu nekk sama ndimbal ba nga xam ne du ma dund dund célibataire tazawajtu takk naa haadihi ndaw si li tunisani ngir na ma wéttale fil xurbati ci tumaranke wa tarhaba ak na fóot an nii ci man xasafal usbati ñëgas ak dund ak ñàkk jabar fa laqiitu ma dajeet min ha ci moom araqal xirbati henu mbuus xam nga boo henu mbuus sa jëmu dañoo xool ne nguur gi itam dara sooyal rek su fekkee nguur gi dir ba ñaqal la ne ñaqal la mm-hmm. ma ne may wéyee ñoom coono yoo ne mm-hmm. nit ñaa ngi foog ne ndaw sama bànneex mm-hmm. waaw fa la xiitu ma dajeet minu ci moom xaraqal xirbati ñaq ñaqu xooyeenu nguur parce que lu nii dana ma yéexee bi xaq yi ci sama xaq wa tukallifu nii dana ma togg aw xataw fii lu koy sama kàttan mm. moom lim ma war a taxawu mm. dama cee négligé mm. te it daloo li ma dama gàcc lu ma su damay taxawu taxawu bu jar yenn coono yi sax ma mën a muñ bu yenn yenn yenn kay mbir may gàcc wala taxawu su fekkoon moom ba may sàgganee doyloo na li ma ma mën a muñ ñàkk a sonal waaye ñaari la boole tam tulu nii may yéexe daf may négligé mm. bañ may dama sàggane mm. bi xaq ci sama xaq mm. ci li nga xam ci war a taxaw wa tukallifu nii muy ma togg fawqa taqati lu fawqa tawqi lu koy sama gàttal <coughs> fa ana man min ha ngir ndaw si nit bu wajan ku soomo ngir taññi wala ku tëqoo taññi la daw naa ha dawa daw mm-hmm. samay tànk ngi métti mm-hmm. ba sama yaram jeex na takk daw naa ba tas ndég mm-hmm. sax bi sama yu man min wu ngir ndaw si nit wu wajan ak nit wu wajan songo ngir taññi la waxil fu sajwin aji taqoo njàqare la wasajan ak fot suma xol du feex benn jamono du ma noppalu heure bu ne maa ngi ci coono yi ma amul benn pexe léegi nag koo wax ne du ma la topp fa ngeen jëm moo soriwu waaye bu nar a sori fokk se nga jóg topp ci kawam moo tax ba topp ci kawam topp ko du mën a ñàkk topp gi topp gi mu yóbbu ko ci yoon rek waa nax nu ñun nag xatasa ay naa kalaame anante nañu ilal xaakimi jëm ci li yadriba ngir na mu dóor xanaa yéete zalimi loxol ki tooñ mu xemale ki tooñ léegi nag dañuy dem ci yoon mu def liggéeyam ci ñun su fekkee man maa sàggane xame gi su waa ñi xam su fekkee moom moo xamul jàmmi nit man koo yore su waa ñi xam waaye nin tadama bu nasoo bay na naa suñ diggante al wi faaxu dëppoo ñu ànd su fekkee déggoo mën na nekk su boobaa itam man nekk ak moom moo taxoon ma takk ko ñu nekk way laa bu déggoo mënul nekkara kon fattalaaxa tànn naa fase wala intilaaxa ak boyu suñ manda def nag kon na dabi muutam may ma dabi suma muut way yatafarraqa mm. yuxni llahu kullam min saati mm. loolu la alquran wax loolu la ci waaye laa guddee koo man mm. daal. ba talaa sax damay taal na fas walente laa ak ak dem ak boyu. xaala mm. xaaris nee na. Mm. fa miltu ma jeng. ilaa an axbura jëm ci ba ma xamat. liman kan lay ñaal. alxalabu xëy bi. wa kayfa yakoon ak naka lay nekk. almun xalabu jàll rek waaye. ma ne layoo bii de du ma ko mm. naa xam ku yey mm. waaw man kan la ñaar mm. alxala bu xëy mooy not gañe ci xuloo mooy xëy noonu la ko wolof di wax wa kay ba yëg koon ak naka lay nekk al mun xalabu yàlla ba ko waaye bi ndax dañuy tàggoo wala dañuy àndal fa jaatu ma def suxli sama soxla dabra usni ci gannaaw sama nopp suba maa ngi woon ci ci yu waaye yëpp dama ko jëlee mm. topp leen mm. wasa yëpp tuuma ma ànd ak ñoom mm. wayin kundu doonte lekk naa laa wax ni du ma ko jëriñ dara doonte moom du ma ko ba jëriñ dara su fekkee Abu Seen la dee man loola mënu ma ca dara su fekkee ndaw si dee man mënu ma ca dara waaye naa seetaan rek ku ji mën a gañe it dun naa la wa jaaltu ma def suxli sama soxla dabra usni ci gannaaw sama nopp hmm. mooy ma tan xam lu soxla yi hmm. wa sayibtu ma ma àndaaleeg ñoom hmm. wa it kon doonte nekk naa laa woon ni du ma fa jëriñ dara ma fa ba ñu teewalee alqaadi ya qaadi ji liira bañ demee ba ca qaadi ji wakkaana te nekkoon na moom man de bokk ci ñi nga xam ne yara danañu gis fadlal imsaaki ngëneelal jàpp qaadi ji nag xelaatam xelaatam mooy li daal dafa war di wut tey jagal la xam xelaatam xelaatam daal foofu la koy gën di yanale waaw ni daal dafa war de dafa war di wut tey téye limam da ko jaam da ko jagal loolu daal mooy ñor ñaar tur la loolu mm. la gis moom wa kaana nekk na moom ji mais man de ko xam ne yaraa dana mu gis fadalal imsaak gi nga ne lal jàpp wa yadannu te muy mm. nooy te muy nay wala wa yadannu te muy nay binnu faasati siwaaki ci tawli si socc moom daal jox ni dara mënu mm. ko yaakaar naa bu soccee bu soccoo sax de daggiti socc boobu muy tëbli mm. koo ko ñaan mu bañ waaw mm. waya donnu te muy nay bi nu fasati si di tëbli di socc mm. bañ àggee nag jasaa sukk abu zaydin abu zaydin bayna yadayhi ca kanama abu zaydin dafa sukk ci kanam xaadi ji wa qaala mu ne ko ayada yàlla na dëgëral allahu yàlla alqaadi ya qaadi ji waax sana te yàlla na gën rafetal ilayhi jëm ci qaadi ji xen bii nga nekk yàlla la ko yàlla xenul dëgëral la ji baaxee gëm la baaxee ba nga méritoo yàlla na saxal maaxdu loo sàmmuwaan teg daraja qaadi bi la rek ko may teggiin waaye waxagu soxla bi soxla bi mooy lan mm-hmm. mooy inna masiyati sama waruwaay mm-hmm. haadihi bii mm-hmm. sama soxna si abiyatul xiyaadi aji bañ ci xomatu la nangulul ma de kasiratu saraadi aji bëri ci dàngang la ku bëri lu may wéy ci suma di ci lu du suma ndigal kasiratu saraadi aji bëri ci dàngang maa anni ànd ak man at ba moom maa ko gën hmm. a topp at ba moom laha defu ko ke dogoo def at ba moom maa gën a topp laha ñaal ko min banaane haa ci baaraamam yi waa xanaa te maa gën a yërëm xale haa ci moom min janaane haa ci xelam ni ma ko yërëmee yërmande ji ma ko ëmbal hmm. sallaaw ëmb ni may dawee bëgg-bëggam. Mm. lu lu lu bëgg ma xaw ci. Mm. baaraam yi muy doxee. Mm. nangu rek wuñ ko noonu. maa ne maa gën a topp laa ñaal ko muy banaan yaa ci baaraamam. wax naa maa gën a yërëm xale ma min dinaa ne yaa ci xelam. lii la góor dandi wax lahaa ñaal ndaw si. alqaadi qaadi ndaw si daal di xaadi bi wax ndaw si ne ko mm. waaye xàkki wara sa yërmande ay mm. waay xamaa mm. alimte xanaa xamul la ne am na nusuusa naka mooy jëkkër bañal borom kër yox di ko dafay sànjaloo arraba borom bi wa yoo jibu te dana mu xeele addar ba dóor xamul la borom kër da ko bañ a taxawu ci li nga ko war a taxawu mm. dafay sori jigéen yërmande yàlla mm. da ko jural sa ñam borom bi mm. ni mu ñëwee jàngale yonente bi mu andi ci ay tëkku dana xeere jigéen itam ñu dóor ko ni mu dikkee ci alxuraan wallaati taxaafuuna nusuusahunna fangiduuhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna loolu baaxut de ñu ne ko baax a waaye fekk na xatte moom demee wut noonu xatte war na demee noonu léegi kay góor gi bu waxee wax ndaw si ne ko ndax dëgg la xam nga noonu la war a demee waaye góor gi wax rek mu saxal li góor gi wax rek dal ci kaw ndaw si commencé xutba est ce que bu ndaw si tontoo dugal noonu duñ ko xatte xatte boo koy def ki fi indi nit bu waxee li tax mu indi ko fi da ngaa laaj kiñ fi indi ne ko ndax yaa ko defoon de noonu la war a demee waaw noonu la war a demee waaye nit ki indi fi nit wax ba pare rek nga dal ci kiñ indi commencé xutba buñ la tontoon nooy def te yow li ngay wax teel boo ko xoolee xanaa ñu seet loo xam xale yi dafa juum ci tëralin moo tax bi dafa mujj la jël ko rek dafa mujj la jël ko rek dafa mujj tër ko rek te mujj lëjël ko rek. Mm. Mm. mu ne ko li nga def baaxut de. Mm. fa qaalat ndaw si ne ko. inna woo góor gi. mi man bokk na ci ñi nga xam ne. yedooru danañu wëndeelu. xalfa daari ci gannaaw mu gi. wa yaxudu te muy jàppee ñuy jàppee. leer ixtibaaru lafdi ci ci haayit bi rek waaye mbooloo ko moom. bi jaari ci dëkkandoor hmm. mu ne yaatiha min duburiha hmm. mu ne ko man ba ñu maa doon soxna waaye fi ñu war a dikk soxna fi ñu war a jar soxna hmm. foofu la ma nangu wute jar xam nga daganu ah daganu xam nañu am na ñu bëggoon a xaskane dagan gi imaamu Malik ñu ne ma waan nisaakum xarsun lëkkum waaye fa ca dellu gannaaw mu ne xarsu ci moo demoon xarsi lañ koy defee kooku du dëgg riyalu zawjati min duburiha kooku baaxul mu ne ko man bañoonu ma ko de waaye fa ma jaareewul ci yoon wa inna woo moom min man doon na koo xam ne yëdooru dana mu wëndeelu xalfa daari ci gannaaw kër ga mooy daf may dikkee bu ma war sa dikkee wa yaaxudu te muy jàpp yaa jaara dëkkandoo bi jaari ci dëkkandoo fa qaala daal di wax la woo ñaar Abu Seydin al qaadi qaadi ji deewoon dara di góor commencé xutba du sotti du sotti du ñu ko àtte du ñu ko àtte qaadi ji daal ci Abu Seydin na ko tabban xala ko lakka ñaar yow de boobu yow a tabsuru da ngay ji fi si baax yi ci suusu xorom boo xam ne benn ngir mënu faa xamee mm. benn jiwu xel mënu faa xamee mm. nga dafa def sa jiwu mm. yow nun nga defee gannaaw wata tawee ko ngay sàkku cuuj xay su laay raaxa boo xam ne cuuj du faa xuusub sori xaan ni wari sori ma waaye laa naxay ma yàlla bu xaw xaw bu ko sa mbir yow yàlla bu sa daraja ala naye ba yàlla bu xaw xaw bu gësa mbir sa daraja hmm. xaw bu mbir hmm. bokk la bu hmm. nga bàyyi xel de waaw faa bokk la faa waaw de waaw wala bu hóolooti xaw bu ka sa ragal dama ne yow yàlla sa xel dalati jam la ba nga dee la ñu war a def <laughs> waaw fa qaala daal de Abu Zayd waqaadi ñu ne ko innaha naka ndaw si wa mursili riyaax gis naa ci yàlla mi xewal ngelaw yi yàlla mi di yónni ngelaw yi ndaw si laa moo gën a mën a fen min sa jaahin mu yow kii def fenkat rek nga jàpp ci waxam ji di ma dal kii moo fen sa jaa sa jaa benn bu daan woote nubuwa su mm. defee ay sañoo ne dañ ko wóoyu ci moom te mm. loolu baax a baax mm. xam nga nabiyatu moom mas da am sax wax dëgg moom jigéen la war de woote nubuwa te it nubuwa ci gannaaw yonent bi du am gëmu kon moom moom moom daanaka fen wuñ toggale la xaw a def rek moo naa dajeeg Musaylimatul Kazzaab loolu la góor gi wax de innaha ndaw si wa mursili riyaa gin ci yàlla mi hebal ngelaw laa kasabu moo gën a mën a min sa jaayin sa jaar ndaw si ne ko ban fi nekk woo moom góor wa man gin ci wóor bi nga ne taw waxal ndombol na mu alhamamata fitam wa jannaha te mu mbaggal mooy mu defal mbagg annahamata baax may la giñal ci mm. ne góor gi mm. laa kasabu moo gën a mën fen mm. min abi sumaama te ci abu te mooy musaylimatal kassar kooku feeñoon ci banu hanifata da wax ne mu ngi mbiram li ñu jox yonent bi mu ngi ko jox hina mahraqa waxtu woon fente fen bil yamaama di ci yamaama kooku nekkoon ci yamaama di wax lu ko neex dina ko baax a baax a baax selum bu baax a baax Xadija ba léegi mm. réglé wut mbiram mm. nu ne buy wax mm. moom la ñoo déglu kenn du ci teg ba léegi wu waaw selum bu baax a baax kon xawul yoon na ndax jëmul kër jëmul kër rek ak bi day lëj waaw yow comme da ngay àtte yow sooy jubale man ngaa bañ a lay biir jote waaye bon doo wax kenn dara da ne feeñ rek waaw soo dee àtte nag nga ne bañul ñaar wax nag nga seet nooy toppee ba xam looy saxal mm. waaye nga ne yow ah, benn mm. ak xaar yi nga ak ni dikk rek wax rek nga tëb dal ci kañ indi di xutba mm. kooko tontu nga dellu tëbaat dal ci ki ko indi di ko xutba kooku du rek le mbir adi atte bi da koy tëb noonu li ñu ko atte waaw boobu dégg <coughs> <coughs> daqa fen Musaylimatul Kazzab ki fi nekkoon foofu ci Yamaama mm. naan yonent la mm. ma ne xew daal comme ci maanaam doo wax nga daal ñu delloo la ko Abu Seyni wax na daal ñu delloo ko mm. mu ne fa dal di fokkat Abu Seyni Abu Seyni safaratal xëy si ndax loolu la hmm? sabira suwaasi kem fokkat ak takka takkat fa safara dal mm. di fokkat mm. abu seydin sabira suwaasi kem fokkat ak takka takka dal safara bi ndaw si waxee lii nag abu seydin nag dal di mel ni ku sofe nag mm. watta saatam mu dal di tat mer mu jéggi dayo itti saatatal muxtaasi jéggi dayo aji mer mer ba nga xam ne daanaka doxatul nit bu mm. waxee xay rek la yow bu mm. waxee la yow mm. waqaala mu wax lahaa ñaa ndaw si mu wax ndaw si ne ko way la ki hoonaa saxaala ku boofoon yow yaa dafaare yow ko xesaw ki yaa fa jaare ku bon ki yaa xusatal baal yow mi fot ak jëkkër comme tibb fon nga ci góor gu lay denci du da bu la neexee nga tàggoog moom mm. te xam moom du la neexat waaw mm. ah, daanaka ku la amee in bottu dee ci loxo mm. ngay do ci moom rek de wal jaare ak dëkkandoor a taam madina da nga jublu fil xalwati ci fiya li temps di mi ma wa tub diina ngay feeñal fil xaflati ci mbooloo mi takk si bi sama fenlo yow ñi wéet maa yow nga soxatee ma ci suma xàq mm. ñu dikk ci mbooloo mm. xelaatoo loo mooy naan dafay fen di ma gàcce mm. waqan xalim te teew nga ne waqan xalim te teew xam nga ne ak nii man xiina banaytu waxtu wa ma xarafee xalayka ci yow wara naytu wara nawtu te ma jaa ilayka jëm ci yow teew bañ ma la bañ la mayee bu ma indi la ba xool anni man hiina banaytu waxtu wa ma xarafee alayka ci yow wara nawtu tama jaa ilayka jëm ci yow albaytu ki fekk naa la aqbaha nga gën a ñaaw min xirdatin golo yow ma la gisee ndeg yaa gën a ñaaw golo waaye basa te gën a wow min xiddatin ci seelit mooy dogiti bant dogitu der der dégg nga mm. min xiddatin ci dogitu der mm. jëmu joo nga xame mm. waax sana te a ñëgës min lii fatin ci tuusu tàmbarma wa lu wa antana domin axsana bi ñaari yoon waax sana te gën min lii fatin ci tuusu tàmbarma waantana te gën a xesew mm. min jiifatin médd mm. waas xala te a diis mm. min haydatin méttitu biit waa xadara te gën min haydatin hayda mooy mors boobu jigéen ji defeeti defeete kanamam bu xamee haydu ndax set waa abrasa te gën min xidratin ci xollit yaa gën a mën a feeñ ci mbedd xollit ci mm. te gën a sedd mm. min xiratin ci guddig sedd mm. waa maqate gën a dof mi rij la ten ci rij la rij la benn xeetu gàncax la wala ya xabbatul xanqaar ñaare bu yol day daw fi muy jaar foofu lay sax su ko dee bu yol de wi dikkee rek yéeg ko day sëgg du mën a jóg alhamdulilah waaw loolu lay lay wax hmm. yow gën a dox bu ñoo jaar nit xamula ko hmm. waaw saa te gën a yaatu hmm. min dij la den ci doxi dex ak dij la mooy fekkut ko ayi bii fekk naa ko ci yow fasa tasu mën agu a waaraka sa ayib ma sutural la wala haraka sa gàcc sa ñaañaayu feeñal ma ala an na ka ànd ak yow sax di la xabat ka bu la mayoon sayru sayrinu sayri bi jamaali haa taara te yow bu war a fetoon doo ni sayri jabaru Kisra la Kisra. jabaru Kisra buuru Fursuut. Hmm. ala naka ànd ak yow. Hmm. law xabat ka bu la mayoon sayrinu sayrin. Hmm. te mooy jabaru Kisra. bi jamaaliha ci taaram. wa subaydatu subayda may la. bi maaliha ci halalam. subayda kan la jabare Haruna Rasid walla. dégg nga. wa balqiisu balqiis may la bi xaasiha ci lalam nguuram mooy malikatu saba buuru saba bi yu suleymaan xooxoon wa buuraanu buuraan may la bi fursiha ci lalam bi farsiha ci lalam buuraan kum wax moom la jabari kan la ah wa kaana min ajmali ahli asriya waaw tazawwaja al mamun wa imratin al mamun jabaraaru jabaru maamoon la woon dégg nga li tegu wa sabaa wa sabaa mayla bi mulkiha ci nguuram waaw Alxuraan yaakaar naa ne daal da wax ne maamoon moo ko takkoon lu mu ci teg fi ayaami xilaafatihi waaw wala ma am la baaliha xiila anna abaha kutiba asmaahu diyaam wa aqaraatin wa nasraati majlisi aqli arab hatiyin wa kullu man waqaa fi yadihi riqaamatan tamliku ma ma kutiba fiha yaan daal yaakaar naa ne mooy nga umul xalifati hmm. wal xalifatu zawjiha hmm. bintul xalifati mm. wal xalifatu jëdduha mm. bintul sax ni bu ko sànnee mu daal ja xilaaf mm. ah, baayam buur la woo jëkkëram buur la maamam buur la te buur la fee man daal foog naa buur ak moomu la ah takkatuma kan la waaye umul xalifati xam na da umul xalifati wal xalifatu zawjuha bintul xalifati hmm. wal xalifatu jadduha hmm. moom daal xamatuma kan la waaye na ku ñu koy wax ci ñun ci jigéen ñi hmm. wa sabbaawu sabbaa may la bi mulkiha ci tadmura wa saba wa saba may la bi mulkiha ji nguuram wa rabiatu rabiatun adabiya may la bi ruskiha ji jàmm saba mooy malikatu tanmur rabiatun adabiya mooy jigéen ju mën a jàmm yàlla ji siw ju am tur ji li si yàlla bu mag a mag la woon kon laysa lii fil jinaani wannaari habdun ana laa astaxi bihi bi badila wa xindifu xindif may la mm. bi faxri haa ndamoom xoray mm. si yëpp ci moom lañ dajee mm. dajee nañ ci moom waaw ah, ay sa tam ci laa sanu yonent bi génnee mu ne boo baaxayoo ni kooku de waa xansa wa xansa may la bi faxri haa ci wéyam fi saxri haa ci saxru xansa may la wéyee wéy ci saxru xansa dafa amoon doomu baay bu ñuy wax saxru yàlla jubali leen lool hmm. yàlla dogal nag saxru dee hmm. mu di ko màtt yàlla waxtu bu nekk dafa jooy rek hmm. desoon ay yére yu méttilu ba am na sax kum dem ci saaba yi muy ko xaaye loolu mu ne ko li waral mbir yi suma diggante saxru moo demee nii demee nii demee nii gannaaw bi nag la dugg ci lislaam lislaam li moo jagal ci nit moom rek moo ko jagal bi mu duggee ci lislaam xare bi maama dafa jot hmm. ñeenti doomi góor la am hmm. ñu ngi toll fi nga xam ne fi la nit di amee njëriñ hmm. mu xebal leen ñu nul ca xare ba mais gannaaw dañoo xeex dañoo laay kalimatillahi bu kenn def gannaaw ji bu leen kenn man yàlla bañ demee ñoom ñëpp ñi faatu ñëw ne ko ñeenti doomi faatu nañ mu alhamdulillah commencé jàmm yi nga doon joxe te noonu ba nga duggagul ci lislaam lislaam bi nga dee rek ñëpp doom yu góor yi si xarit di sant yàlla loolu moo la li muy jagal diine moom rek moo ko mën a jagal moom rek moo ko mën a jagal waaw moom rek moo ko mën a jagal mu ne ngëneel yi jigéen ñi yëpp boo ko dajale nga doon dara te boo doon ku ne sax day dajale ngëneel yi jigéen ñi laa ne su kon ma sib anta koona ba nga gat añee da tarax lii de war waaye sama laxas hmm. wataroo xata faale tey ku ñu tabi sama kuy hmm. kon sax damay def gàcce ci ne man may sa borom hmm. jigéen ñëpp boo meloon ni ñoom dajale seen ngëneel kon teewoon maa ngi rus sax ñu ne may sa borom kër te yow jaroo dara sax mu ne fa tasam ma fa tasam mara dal di jëfandikoo mer nag almaratu jigéen ji watanam marat te mu tene tenelu hmm. waxasarat mu dalde wax ndaw si hansan hmm. hede ha ci xasabum hmm. wasam marat mu wagu eh ndaw si noonu ko da nga ne joxolo ko ngaana gi di moo yëpp daa ko fay mu yaa ama bon min maadirin ci maadir maadir ku bon la woon koo xam dara su gasaan ay siyaan pour naandal juróom buñ naande buñ naan buñ naande ba pare ndox mi def su ko mën a sàkk dana ko a bon koogule waas ama te ëpp min xaasirin ci xaasir ku yor gëlëm loo xam ne gëlëm gu mu tëb rek mu dee gëlëm gu mu tëb waaj ba te gën a ragal min saafirin saafir benn janaaw la bu xam ne ñu ne duy nelaw daanaka ndég ragal waaj la te gën a tey te gën tey min taamirin ji mat bu xasee bay dox du feenu fenn waaj la te gën a tey min taamirin ji mat atar miiri dag may sànni bi sanaari ka ci sa ayibal danga may jël sama bi wa tabri ngay xottin xeet lii sama der bi sifaari ke ci say paaka mm. ah xam nga nga bëgg nagam mm. waanta te yow taalamu da nga xam ne te yow xam nga ne an naka naka yow mm. askaru yaa gën a xeebu min xulaamatin daggitiwe yaa gën a ñàkk maana daggitiwe yaa ne kenn xalaatu jël loo may wàcc de waa yëbut yaa gën a am ayib min baxlati abi dulaama ci hmm. baxlam abu dulaama ba hmm. barkeelam abu dulaama ba hmm. buñ ko waraan bu bu rombee mbooloo rek balay dem dana fa saw kenn yow gën a am ayib waaf waaf dafa yàlla dana doon gàcce min halqatin ci rëccile fi halqatin ci mboolo galaw garaw wala mboolo lu muy doon gàcce nekk yow garaw do gàcce waa yor yaa gën a gërëm. min mm. baqatin ci xel. fi waqati ndax loolu la. waa yor yaa gën a gërëm. min mm. baqatin ci xel. fi waqatin ci ndabal gat. Mm. waa ka jotul sa bopp sax. alxasana nga de xasanul bis bi. fi waxtu yi ca waadeem nga mën a waadeem nga. walaf si ak baatam ya te yow nga doon ko ragal yàlla xam-xam xam fa saa mën a waade bañ mel ni bañ wax ne mel nga ne hasanul bisri dara nga mel ni googu wa saabiya wala nga ne saabi alimun yara fi ilmihi ca xam-xamam ba wa xifdihi ak mokkalam nga wala nga mel ni saabi ca xam-xam bu yaatu ba mm. ak mën a mokkal ga mm. mu ne lim mokkal mm. waye ji gën a tuuti mu ne mën nay toog weer de sotti waye ji mokkalam te waye mooy du jaral te lim mokkal waye ji gën a tuuti kon ku mënoon a mokkal la te nga mën a mokkal mel ni sang bi wal qalila wala nga mel ni qalil ibnu ahmada fi arudihi ci arudam ba wala nga mel Aarut doom génne moo génne hem mu Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi moo de sëriñi Sibawayhi ci naxwu bim jàngalee Sibawayhi ba Sibawayhi man xam-xamam bi lool ba génne téere bi muy alkitab dafa meloon ni jàngkat yi nag téere Sibawayhi bi ci lañ gën a hemu mu gis ne gannaaw Sibawayhi jël na naxwu maanaam Mm. mu jëm si way jël na naxu mm. te bëggul bàyyi jàngale mm. mu dem Màkka ñaan yàlla mu yëng bal ko xam-xam bu xam ne dana ci mën a wéyale njàngaleem ba ko ñaanee dañuy bi fa mu dëkk baa gu fuñ naanaaroot ci diggante Màkka ak Taïfa foofu la ko sama borom xubbee wan koo xam-xam marul mu gis nattukaay yi tuddee leen ay buhóor génne leen ba mu leen génnee wéere ca njàngam si wéy na ba mu sóoboo ci njàng moom mm-hmm. moom mënu jaa xam dara mu ne wéy bi na aroon moom dugg na wala mu ne aroon moom bokku ci dëgg dëgg mm-hmm. moom dara mujj ba pare dara mujj bàyyi pare mm-hmm. ilmul xalil rahmatullahi alayhi sababuhu maylul wara li siiba wéy xam-xamu xalil mooy ni ñu jeng guñ jeng jëm ci siiba wagi hmm. fa xaraja al imaamu yasaa haram hmm. yasalu rabbal bayti min faydil karam hmm. fa zaadahu ilmal arudi fantasar baynal wara fa aqbalat lahul basar dégg nga léegi bu ko daan jàngal taalim yi dégg nga dina ko wax ne bu réew mi dañ tubaab dañ bàkki wusa na fi yaakaar naa jàng nañ ko xam ne te xasida bi matul téeméer waaye am nañ ci at di ko jàng. kon mu baax. li ci teg waa Abdul Hamid lan la nga ci teg. wa jarir wala nga mel naka jarir. fi xasalihi ci këccilanteem. waxaj mi ak ŋàññam sura bi moo bëri. wala nga mel ni jarir ca mën a këccilanteem nga. ah wa qalil fi arodihi wa naxwihi wa jariran walla nga mel naka jarir fi xasalihi ci këccilanteem waxaj bi ak ngaññam xasal moo ci mat ñëpp dañoo wax ne way wi gën a doon xasal ci waxi arab boo koy seet ba mu àgg ahsanu baytin qaalatul arab mooy waxam jëm wax ne inna al uyuuna allati fi tarfiha hawarun qatalnana summa lam yuhyina qatlaana ñu ne am dahu baytin xaaladun arab mm. mooy la jarir wax ne mm. alastum xayra man rakibal mataya mm. wa andan alamina butuna rahi ñu ne ahja baytin maa tasawuni anil fuusi ŋàññi bu gën a doon ŋàññi te baat boo ñaaw ci dégg amu ci li arab woy mooy li jarir wax ne fa xudda tarfa innaka min numayri fala kaaban balagta wala kilaaba ñu ne wax wu way way gën a doon dëgg ci lu arab wax mooy la jëriñ wax Omar ibn Abdul Aziz ne ko inni la arjo minka xayran ajilan wa nafsu muulaatun bi hubbil ajili wa nafsu muulaatun bi hubbil ajili benn wax mënu ko gën a doon dëgg ni dafa bindoo yàkkamti jongante naa jëm ñett fukki saa defante naa ñoom gañale defantana ñoom gañe la defantana ñoom gañe la mu axtal ak barazak ak suurima ak ñu mel noonu ñoo xawoon jamono ante ñoo xawoon jamono ante sangir amawi la tagg naa Umar ibn Abdul Aziz tagg yu rafet rafet tagg na ko tagg yu rafet rafet xadisa bay wajaal xilaafata kaanat lahu qadaran kama ataa rabbahu Musa ala qadari borom Abdul Aziz lay tagg wane na xasida am nekk bu xéeme xéeme la xéeme xéeme la waaw a askurul jahda wal balwa allati nazalat am qad kafaniya ma bulighta min xabari inna la narju izaamal xaysu axlafana min al xalifati ma narju min hmm. hmm. al matari yëpp da nga ko jege ak antal mubarak wal mahdiyu siratuhu taxsil hawa wa taqoomu layla bi suwari xasida hmm. bu rafet rafet rafet <coughs> nga mel ni moom wa qusam wala nga mel ni ko qusum nu saayadata al ayadi al ayadi ci banu iyaad la bokk fi fasahatihi ci fasahaam wa xitaabati ak xutbaam xussum mu ngi bokk ci ñi dàqa xutba ci arab yi moom nag yonent bi fekke na jamono waaye nag boobu yonent bi xooteegul gis na ko itam xo kaaba na xutbaam itam gannaaw boo xamee ne na àddina lu yonent bi de woote jëm ci lislaam hmm. ba di benn ko waxtaane hmm. de ko naw torop hmm. ba laajte ndax xam na lu ci waaye garde ci xutba moom déet xam nañu ko ca wan dara keroog yaakaar naa fëri si du ñàkk lum ci wax mu Abdul Hamid wala nga ni Abdul Hamid fi kitaabatihi ci bindam fi balaaxatihi ci balaaxam wa kitaabati ak mbindam wala nga mel Abdul Habib. Mm-hmm. ki nga xam ne ko ràññee ko ràññee ko la. Mm-hmm. ci mën a bind ak am balaaxa lool lool lool lool. Mm-hmm. boo demee Jawaahirul Adab. ca bopp téere ba. dafa gis loo xam ne man waa de mooy ilaykum maasaral kuttab. mooy kàddu teggin yi mu war Abdul Hamid la ay Abdul Hamid moomu la. waa Aba Hamrin. Mm-hmm. wala nga ni Abu Hamrin Alala. Mm-hmm. fi qiraatihi ca njàngam alquranam ma kenn la ca alquraaw saba. Mm-hmm. wa iraab yi ak iraabam. nga mel ni Abu Hamrin ibn Alala. xam nga moo doon man iqtarafa xarfatan bi yadihi. Hajjaaj ibn Yusuf xoolu ko. na ko illaa man ixtarafa mu ne xarfatan bi yadihi mu ne ko xarfa mu ne ko man de loolu lay jàng mu ne ko soo ma ko wutalut nadir ci arab dama lay rey ndax ku yàq ci alquran yàlla ji duma ko bàyyee noonu jox ko dat ne ko bis sàngam nag laa la xàppal ak waa am leen dëwër ci biir arab yi ndax buy gëstu dara ñoom ngay dem ba bis bi ko Hadj Hadj waxoon jot. gisu ko. bis boobu ci lay wër. dégg nga koy wéran rubbama tajzau nufuusu min al amri lahu farjatun ka hallil aqali. mooy léeg-léeg bakkan di jàq. te fekk la ko jaaxal comme parce que ci bëre ceeb wala lu sotti la. mu déglu ko waa ji waxaat mu waaw lu xew mu ne ko Hajjaaj moo de hmm. mu ne ko waxaatal woy waaye rubbama tajtahidu nufuusu min al amri lahu farjatun ka haddil iqaali mu ne ko farja wala furja hmm. ko xam ne ni fi bu ñuy jëfandiku fond la rek dafay nangu faana hmm. xam nga xarfa la doon te am na farja mu ne man xam-xam gi ma xam ne ma doon wut. waaye jaay ji dee na. Mm. lu mu ci daal xam ñaari at baay. Mm. <laughs> wax dëgg waaw. Mm. wam nu Quraybin wam na Quraybin nga di ibnu Quraybin. te mooy Abdul Malik ibnu Quraybin al-Asma'i ku ne xam na ko. fi riwaayatihi ci solo man arab yi ci arabam yi. lu bare bari ci ayamul arab yi. ak seeni nawaadir ci moom lañ ko jëlee yu ngeen tëranga jot tëranga di ñi atago nuni itam may jot àddaka may la gërëm imaaman ngay xilimaan li mihraab yi ñaa sama mihraab wa sayfan wala nga de jaabi li xiraab yi ñaa sama mbar man tekki góor ñëpp bu daje woon jeew sax tamu ma la nga de jëkk laa déedéet Mm. wallahi wala tannu malam o waaban ngay bëkk néeg mm. li baabi ñaar sama bunt mm. wala tannu mala hasan nga reet li jiraabi ñaar sama gafak ko nekk wax la dégg nga dina ko bu baax a baax ñu dem tuuti fa qaala daal di wax lahuma alqaadi qaadi ji ne leen xaraakuma gis naa leen daal sonnan ngeen di sonnu Mm. wa tabaqata ak tabaqa mm. baati luy maa nga ee wal bëri moo jàpp dafa mm. ñu ne sonn ndab la moom loo xam ne ndëpp guñ ko ndëpp guñ ko indi rek du du ne mën a ànd ak moom ndëpp guñ ko indi rek du mën a ànd ak moom tabaqa doon benn ndëpp ndab luñ ko dëppee rek du mën a ànd ak moom yàlla dogal ñu dajee bañ leen dëppalee ñu mën a ànd waaw léegi daal li am baax mooy góor gi ko tëyi bokkam la ñu bëri mënuñoo def ak moom waaw ndaw si itam ko tëyi bokkam la ñu bëri mënuñoo def ak moom ñoom ñaar nag daje nañ xam nañ loolu la loolu daal la koy niru daal li am baax daal mooy loolu waxit atan wa bundu xata ñaa ngir alitin bundu xa ñaani fetal waaye am moom noonu la demee rek ñaari baat yi sorewuñ dafa am ñu ne hit a ah, turu jigéen la bunduxa turu góor la léegi nag moom bunduxa léegi nag turu ah, jigéen la kenn gi di góor xissa bi takk naa ko waaye hmm. tur yi nag laa fàtte kon hmm. turu jigéen la. yaa sonn na dafa jogoon de labati tabaxa ne bu koy toog xëy na fañ déggal bu ko déggal fay dem takki ko. Hmm. yàlla dogal nag mooy dem de ko seeti. Hmm. xam góor gu farante ci yoon bi. Hmm. góor gi jëm ca dëkk ba. léegi góor gi mooy bàyyi tabax. ñu war a xam ne jëm ca dëkk ba. ñu doon dem ba ca kanam. mu ne ah man maa la yenu wala yaa ma yenu. mu ne ah ñëpp bokk na dañu yenu ànd yem. ñu dem ba xew ab tool bu ab tool bi ku borom borom borom borom góob na ko wala góobu ko. lekk na ko wala mu ne tool bu taxaw nii ngay laaj borom lekk na ko lekk ko. ñu dem ba ca kanam ñu romb néew baatu mu ne ko ndax kii dee naan deewul ku ñuy sang. waaye ba mu demee nag de waxtaan ak tabaxa ne ko tey daal dama gis gan boo xam ne daal am na comment nañ jëm ci dëkk bi kooku daal man ma xam yi daal. bañ ko yee li mu wax mooy maa lay xenu wala yaa maa xenu loolu ku koy wax dañ bokk di dox. loolu du tool mu ah ndax tool bi borom lekk na boo lekk wala tool baa ngi taxaw. loolu bu ko dee mu ah ndax kii dee na deew. mu ne tabaxatu ne ko yow nag waaye lim la wax la yaa ko xamul rek. wala yaa maa yenu wala maa lay yenu daf doon lay ndax yow yaa may wala moo lay waxtaanal. su ngeen ko kee de waxtaan ne dem na da ngeen a bette kenn du sonn du sonn rek. te lu mu la doon laaj ndax jeex na borom lekk na moom lekkul ko fa la doon laaj ndax borom mu ngi xaar bot wala amul bot rek. léegi la doon laaj fa la doon laaj ndax mu ngi bàyyi wala bàyyi du doom rek. dañu na xam naa bañ dajee déggoo. lu mën a tax li mu a wax mooy yéen ñaar daal comme ciment daal dafa tënk. daje ngeen. kii daal buntu xase yi tam noonu la demee ñaar kii daal mooy li jën buntu xam mooy fetal xam na ñuy wax loolu. waaye lu mën a tax ñaar ñu ko lañ daal daje. Fatru bàyyil. ayyuha rajul yow gire góor. Allah dada tatakulu. yow mi borom kër de kilifa. dafa nu la doy boo di ko moyu. Mm. bul de waxee noonu kii di bul waxee noonu. Mm. waslum te na nga soowu. Mm. fi sayri ka ci sa dox. al jadal yoonu jub. te itam gannaaw si waaj moo leen boole. da nga war a jaar ak moom fi nga xam ne. foofu la taw jee ni war a jaar ak. dafa jéem waa maa andi daal yow nag. ko ku fi fewul hansi ba bihi ci nga ñem ba ko kafa ci sa këli ba wa qirri te nanga sax isa ta bu dikkale albayta négo min ba bihi ci wuttam te bu la jaaree te bu la li xaqam ba ko bañ baa ne ko xam ne bu ndaw di tontoo li bi mu di jënd boobu li jënd boobu léegi nag xaadi ji de moom lim gis daal mooy ñaar ñii daal mën nañoo ànd kum ci maa daal tanay bokkam daje nañ ñoom ñaar xem nañ xanaa ngeen jéem a àndoo ànd boo rafet ndaw góor gi liñ la tuumaal su fekkee dëgg la ba ko ah yow itam ndaw si nag gannaaw kii mooy sa borom kër nag nga war a nangoo nekk soxnaam loolu fa qaalat dal de wax almaratu jigéen jigéen ji mm. wallahi giñ naa ci yàlla mm. maas junu duma tëj de mm. xan wu ci moom lisaani sama làmmiñ illaahi saa kasaani ndare boo xoot dana ma de bu soobee yàlla bu ma xottilu dana ko dégg de li nga naan boo ko ŋàññi nii su dana ko dégg duma deñ de ko wax wala arfan duma yëkkatil lawoo ñaal ko siraaxee sama maaw hmm. doon isbaaxee walis rek gal ma hmm. te su ma bàyyee ci xiib hmm. du jaxasoog man su bëggee jaxasoog man dana ma jox ma kon mel na que moom liñ ko wax nanguwu dara ndax fukk fi ansiba bi nee na moom buñ ko woo tudd noonu wa xirri isaatal bayta min baabi nee na buñ ko lexaalu dunam <coughs> ko ah sey lii moom moom ah wax dëgg yàlla jabar dañ ko war nul war ko xool nag hmm. fa xalafa dal di giñ abu seyrin abu seyrin dal di giñ hmm. bil muharrijaati ci way xatal yi salaas yi yëre ñett hmm. mu giñ ci al muharrijaatu salaas mooy lan dëgg-dëgg xam ñu ne mooy billahi wallahi tallahi xam ñu ne mooy giñ ñetti façon ñenn ñi ne mooy giñ fase ak gorel ak dox dem mag hmm. waaye giñ ne daal ànd na ko naka moom layam ko dumu moom hmm. si waa maari yi ndara ay sagaram hmm. arisaas yi dafay rab aboo seen wax ne ma xamul dara xamul lu muy xoddee nit xamul lu muy dundalee lii nag te ba xel ne dangaa xame lu leen neexut a am mm. neexut neexut mm. man laa muñ lii mm. te na doo tàggoog nit fa ngay nekk di ko wax lu jagat kooku itam neexut a xam est-ce que affaire bi du nga ne man laa am te nangu wala tàggoo ki nga xam ne bay ko kalaam yow ndaw si xam nga ne góor gi amul dara te nangu wala tàggoo moom doo ko may jàmm est-ce que te neexut a xam moo tax ne fa nabara dal di xool alqaadi qaadi ji bi xasasihima ci seen njàngat qaadi ji nag xoolal seen mbir nag nabaral almahe yi xool aji ñëw xaali ji nag door a liggéeyee ci ñoom nag waaw karate mu xalam fikratal lawdaan yi xelam ak aji ñëw liggéeyloo xelam ci ñoom bu baax suma aqbala topp mu jublu alayhima ci ñoom ñaar bi wajhin ci xar kanam xat xattabaho boobu ñëkkal na ko wa mi jënnin ak pakk xat xalabaho boobu jàllar bi na ko bi fi settantalee seen mbir ba ca kanam mu daldi leen engagé ak ñëkkal lool daal beneen cëlmaay bu bokk rek ba mu doon waxee ñoom waaw suma aqbala topp mu jublu alayhima ci ñoom ñaar bi wajin ci xar kanam bu xam ne xat xatta ba hoo ñëkkal dëmu ko wa mi jënnin ak pakk boo xam ne xat xala ba hoo jalar bi nam wa qaala mu ne leen alam yëg fi kuma xanaa doyu leen ak tasaafu wax waxi dof dof lante jaayante ndox waxi defe dof dof lu dégg nga mooy wax ji jaga dara lay jiblu fii majlisul hukmi ci barabu harte bi mm. wala xadaamu ak engagé mooy jiitu mm. ala hadal jurmi ci bile tooñ xataa mm. tara xaytuma ba ngeen kowe fii fuusil muqadaati ci ñaaw ak ŋàññente ilaa xubsil muqadaati jëm ci bona guru mooy leen yéen nag yoon ak leen a bëggee parce que yéen ngeen yéen ñëw barab bi laaj yarak teggiin defu ko amu leen fi teggiin mm. waxante bon lu ne mm. ba tey seen làmmiñ bu ñu ne leen ne mm. yéen ay tappalekat ngeen mahkama dafa am alam yëg fi kuma xanaa doyu leen alam yëg fi kuma xanaa doyu leen a tasaafu nga ñeente mooy wax fii majlisil hukmi ci barabu hàtte wale xadaamu ak songu mooy engagé ala hadal jurmi ci toñaange yi xata taraxaytuma ba ngeen kowe fii xubsil muqadaati ci ñaaw ak ŋàññente ila xubsil muqadaati jëm ci bona guur waaye mun laahi ngiñal yàlla mooy sama laqad axtaat mooy na. Hmm. ustu kuma seen buntu suuf. Hmm. alxufrata pax mi. Hmm. mooy seen na. loolu la rek. xam nga kii rek ci suuf su mooyee buntu pax mi. dafa la waroon na. wala mu si jotul. soo mu gi. ak suxrata fàttu. seen jëm bi mooy. ne benn kii lay doon ci dox. Mm. soo dara day dugg lool. mooy mm. dënn asura sa dënn waaye ñu mooy jërut pàddu mm. amiral muminina naka buur julit ñi ansa yàlla na dëgëralee allahu yàlla addiina bi baqaayi ci defam buur julit bi te yàlla na nekk de dëgër laayu diina nasabani sampa na ma fi hmm. li aqdiya ngir naa xatte hmm. baynal xusama ci diggante way xudoo yi hmm. laa sampun ma fi li aqdiya ngir naa de fay daynal xurama boti way lem yi gis nga lii sama liggéey xam noonu lañ ma fi tegee mooy ku xamee ma jël ko ci yow delloo ko borom waaye xamee jabar man la koy dundal man nga maa la koy dundalal mm-hmm. waaye loo man dafay naan man maa la koy fayal mm-hmm. loolu tegul ma fi de mm-hmm. loolu du de waaw ku xamee àq nag man naa koo jël ci yow delloo ko borom loolu la mooy loolu mooy sama liggéey waaw waaye yore jabar mënu koo dundal def na man dama la koy yoreel loo man dafay def man dama la koy fayal ci sama alal ma fi de tegul ma fi de du su batni xadiji ku nay la hmm. ah nasaba nii sampanama hmm. li aqdiya ngir naa de fay ngir naa de xatte hmm. baynal xusama ci diggante way xuloo yi waaye laa sampun ma li aqdiya ngir naa de fay danal xurama bata way lebi wa xaqi ni amati yi wa xaqi ni amati yi giñ naa ci xaqi xewalam nag allati xewal gi nga xam ne axallat ni wàcce na ma haadal mahal la wàccuwaay bi mm. wa mallakat nii te mu moom looma mm. alxaqa dafa wal halla ak fecci mm. tey buur boobule nag xam ne lu ma fi sañ tey moom moo tax lu ma fi do moom moo ko moo ma ko doxal xam ne waawam moo tax sama waaw defi waaw déedéet tam moo tax sama déedéet defi déedéet waaye tey bu noonu déedéet jëmale ci man ak man dootuma do dara kilifa googu samp ma fi li tax mu samp bi ci laa leen di giñal ne hmm. layi lam too de ha bu ngeen leralu hmm. lii ñi xal ma hmm. jëli yata xat bi kuma dëgg-dëgg seen mbambare seen mbir waxa bi aata xit bi kuma ak daxañteebu seen xuruj la una di dan na danaa yéebaane bi kuma ci yéen ñaar filam saari ci njéende yi wala ñaalan ne kuma dinaa leen def xemratan ngeen de xalam lu la saat ñaal baram xel su ngeen ma waxu seen mbir dëgg dëgg dëgg soit danaa leen def lu tax lii du ko dajati ci kenn mm. te itam danaa leen signaler fu ne mm. fu ngeen xam ñu jàppale mm. waaw su fekkee waxu leen ma seen mbir dëgg dëgg kon danaa leen signaler fu ne ngeen xaw rek ñu jàppale danaa leen jaarale fu xam ne bu soobee yàlla yéenay doon waa doo kayu ku ne la woon na di bi kuma ci yéen filam saari ci njéende na kumaat naa leen def hmm. xam nga sembrasan ngeen de xalam hmm. li la saar ñaar borom xel yi hmm. buur ci baadolo waaw ah, moo tax baadolo ma déggal buur rek waaw ah. jëfandikoo doole daal tappale mu bëgg rek mu ni <laughs> wax mu bëgg rek waaw ah. faat raqa daal di sanaagal abu zeydin abu zeydin israaf na su jaa kem sanaagal ak jaam hmm. aboo saydin sëgg tuuti hmm. summa mu wax la wa ñaal hmm. ne ko sama he déggal sama he déggal waaw ah, comme léegi ku la waxal rek nga bëgg waaw déglu déglu rek ma waxal la waaw ah, comme léegi ku la waxal nga bëgg déglu déglu rek ma waxal walidi déglu lii la wax mu ne ana وهذه عرسي وليس كالبدر غير الشمس وما تنافى أنسها وأنسي ba mu àgg rek mu ne ana man astrologie yu maay soroj man soroj laa Abu Seydin waadi kii xersi sama jabar la kii sama soxna la walay sa ko albarri déedéet naw lee weer na xayru sam si kudul weer nag duñ koy nawlaante kenn ku dul jant hmm. man góor laa goo xam ne hmm. daanaka jigéen ju mel nii rek hmm. la mën a àndal moom itam jigéen la joo xam ne daanaka góor gu mel ni man rek moo mën a ànd ak moom <coughs> wamaata naa faa dàq wante wudde unsuha wéttalam wa unsi ak sama wéttal déggoo ba fa déggoo de xem de mu am suñ diggante benn wuute amul suñ diggante wala tanaa soreewub dayruha dayru mooy jaamukaayam labbe kinaayatun an farjiha an xusi ci sama labbe maanaam alaqaatu siwaaj kem ni mu war a demee bayna zawjayni noonu rek la demee suñu digal wala adal jéggiwut suqiyaaya saba nandal arda ardi suufa sama njëmbat te fi ma ko war a jaar rek fa laa ko war a jaar kon tamtuluni bi haqqi wa tukallifuni fawqa tawqi ku ne xam ne du dëgg ak ye dooru xalfa daari wa yaxudul jaara bil jaari ku ne xam ne du dëgg wala adat jéggi wu saqi suqiyaaya sama nandal ak daxat yi suufa sama njëmbat lakin naa li fi nekk ñun nag mun su layaalin lu mat ay guddee xam seen yére juróom waaye man ak moom nag juróomi fan yàlla ngi nii de nus bi bu danañu xëy fi saw bi sawaa ci malaanam xiif wanum si te danañ ci gont xiif la ñoo xëyee xiif la ñoo gonte duñ jaar ci ndékke duñ jaar ci reer waxuma la xañ nag xiif la ñuy xëyee moom la ñuy gonte nusbihu danañu xëy fii soobi tawaa ci malaanu xiif wa numsi te danañ ci gon la naarifu duñu xam al mataxa sàqar mi lumpu wala taxasi du càggeen góox dara xamuñu xataa ka an naa ba ñun li xufuuti nafs ngir yooy ak bakkan néew doole gu fàqee koo ci ñàkk a lekk moom la ñuy wax xufuut boo ko ah néew doole gu baaxee ko ci ñàkk a lekk mm. mooy xubóot mm. moo di yooyu muy loolu yooyu dégg nga mm. waaw atakaan naa ba daanaka ñun bi xubóoti nafsi ngir yooyu ak bakkan asbaahu mawtaa jëmmi wéy dee lañ nusuro ñuñ dekkaleef na leen men rab si tukkee ci bàmmeel boo ñu gisee daal ay ndee ndekki nga ñooy teg de ndeg nit yooyee jëfandikoo nañ jom jëfandikoo nañ sax jëfandikoo nañ lu ne mm. waaye nit lu ko ëpp rek ëpp na ko mm. bañ ne ba mbir mi ëpp nag mm. lañ doxal doxalinu koo xam ne li ko dal ëpp na ko rek fa yéen asa waxtu wa jëfee asabru muñ wa taassi ak dëgërlu mooy muñ bañ demee ba yëf yi ëpp ñu wa sofanaa te ñeeri ñu mooy ngacc ñu métti ci ñun lool abdurul lor mm. alalimul masti guraaji méttital ci laal mm. ba nga xamee ne mbir mi ëpp nañu mm. comme naa la ñu taxaw hadal maqaama bi de taxawa lañ taxaw taxawaay bi li ci laabi fardi ngir ba ngir bi ci koppar pour mën a am luñ jàlle li faa di jënd ngir pexe mu aw li nax si wala ngir ja benn muy sens la wala boog muy doon gën a ala ko rek. Mm. benn muy chance la. Mm. wala gën a ala ko rek. Mm. xob naa la ñu taxaw. li nax si ngir gaaf benn mu rek gën a ala ko. li chance di jënd ngir taxe mu benn muy chance. li nax si wala ngir gaaf. dañ taxaw hadal maqaama bi la taxawaay. li ci labi fal bi ngir bindi koppa. lu wal faqru ñàkk yal nañu ci yàlla musal yul ji dafay loruloo al hurra gor xiina yur si waxtu wum saxee ila tajalli jëm ci feeñ fii libaasi lëf si ci kodayal jaxase lëf kodayal jaxase ñàkk dafay wax dafay dugal si gor ci jagut ci jagut ci ñoom waaye ñàkk ñi ci dugal kenn mënu koo xeex Hmm. te du la daane hmm. xaalamtu kulla baliyatin fa hmm. musiba wu xeex naa ko daane ko xeex nañ ma daane ko xaalamtu kulla baliyatin fa xalamtuha wal faqru xaalabani fa asbaha xaalibi waaye ñàkk moom keroog bañ songoxee moom moo ma daane ko waaw xaalabtu kulla baliyatin ma loolu ci nekk rek de waaw waaw dina bu baax a baax wal faqru ñàkk yur ji dana mu loroloo alxurra si waxtu waa dana mu sax ila tajalli jëm ci feeñ fi libaasi lab si ci ko dayal dina bu baax mu ne ko fa haadihi lii daal haali mooy sama waasa lii daal dars yi mooy sama njàngat mm-hmm. su dee xam nga bëggoon daal mm-hmm. lii mooy sama mbir mm-hmm. fandur seetal ila yow mi ci sama tey su la neexee nga laaj ci fan may agsi fii nga xool nga xool ma da la wasal te nga laaj si ci sama dem waamur na nga digle bi ci sama jëng jëng intasa boo soobee aw xab si wala sama sëy léegi nag bu la neexee jëfandikoo yërmande bu la neexee jëfandikoo doole soo ma yërëmee xettali ma du wàññi ci li man dara soo jëfandikoo doole man ma torox du dara la ci fekk yow dara la ci fekk waaw soo jëfandikoo yërmande xettali ma du wàññi ci li nga man dara soo jëfandikoo doole ci suma kaw man ma torox it man maay torox yow dara na fekk moo tax man daal fi ne yow yaa xam na waamur na nga digle bi jabri ci jàng ma intasa boo soobi ndax man nga maa dimbale ba nga taxaw ba ma taxaw te du la dara aw si wala tëj ma man ngaa jëfandikoo ci suma kaw doole ma toro daa tudd ci fekk foofu ya day ka nekk na sa loxo mm. si mm. si ak wurneeku sama xew mm. bu la neexee daal tey tey tey mu gën a doy waar fa di wax lahu alqaadi qaadi ji ne waaw kon li yësub na dellu unsukka sa wéttal comme soo xeboon nga kontaan rek Eh, wal ta sib te nag tey nafsu ka sa bakkan mm. na sa xel dal rek mm. faqat xaqa na la ka ñaal la mm. an tox fara bu jéggalee fa xatiyatu ka sa la war a jéggal bakkaat ak rek daa ko war a jéggale ah qad asa ilayka fulanun wa muqamul fata ala dulli haaru qad jaana wa ahdasa xosran diyatu sambi indana al ixtidaaru ah di yetu sëb mais danaa leexi daal comme gàttu lu nga rek dañ la jéggal watu wa faraag bu lëwalee fa xati yetu ka samay te it dañ la jox ndax wax dëgg yàlla ñi loru ñoo xëyoo te ci nga bokk yow soo yeboo sakkal dal rek xadi ji foofu dogi benn nopp du dañ di ko sonna te loolu ko xam nga ci njëlbeenal xatte bi góor gi moo wax rek mu tëb xutba ndaw ndaw si tontu mu tëb xut ko góor gi coow li tàkk mënu koo rek la ba xam ne day doo xam dañ koy nax topp daan ngeen di ba xam ne dañ koy nax commencé nañ lay góor gi wax na ba pare balay xàggalal mu wan ko ne ko daal a defal li nga bu ndaw si waxee na mooy def xam ne daal dafa yàkkal bi daal dégg nga ba mu waxee loo rek fasaara dal di jéqee ko azawjatu jabar ji hen da saalika ca foofale hmm. wasataala te mu yëkkateku hmm. ndaw si nag mel ni nag kuñ cojal nag hmm. dal di góor nag waa saarat mu junji ji way teew yi commencé de joxañ baaram mbooloo bi wa qaalat mu ne leen yaa ahla tibrisa lakum haakimun aw faa alal hukkaami tibrisa ma fihi min aybin siwa annahu yawma nada xidmatuhu difa xasattuhu wa seyhu nabri jana odin lahu ma zala mahsusa fa sarraha seyha wa qad naala min jadwahu taxsisan wa tamyisa wa raddani ahyaba min shaimin barqan xafa fi shahri tammusa ka annahu lam yadi anni lati laqad da seexal arajiisa waa na ni in situ xaadattu odoo katan fi ahli tibrisa yonent bi sa alquran day waxal ñaari nit ci soxna yonent bi ne leen in tatuuba ilallahi fekk dafa amoon lu jaaroon seen diggante yonent bi ba mu gi ñoom ñoom mais su fekkee tuub ngeen faqat saxat qulubukuma kon loolu jàng jëm ci lu baax la ci firi nu ñeen wa in tadahara alayhi su fekkee da ngeen takkatoo nag ba xel ne da ngeen a ànd ak moom ci di ko sonal wu nekk rek da ngeen a ànd ci di ko sonal waxtu wu nekk rek su fekkee da ngeen takkatoo nag bàyyi xel ne da ngeen a ànd ci sonal yeneen ci waxtu wu nekk rek fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibrilu wa saalihul muminin wal malaikatu ba'da dalika zahir dëgg-dëgg yàlla rek doy na fa inna allaha huwa mawlaahu dëgg-dëgg moom rek doy na waaye teg nañ de jibril teg ci saalihul muminin teg ci malaaka yi yëpp seetal yàlla ak jibril ak saalihul muminin ak malaaka yi ñu ne dañoo jàkkaarloog ñaari jigéen rek hmm. seetlu wala hmm. xam hmm. nga loo cay jàngee mooy darajay yonent bi fa yàlla ak ko bindee fi yàlla yi seetlu nga baax ak loo cay jàngee mooy jigéen ñi seen mbir jar na detey loolu nga ci war a jàngee seen mbir jar na góor gi wax na wax na lim bëggoon xaadi ji wax yépp Hmm. jébbulu nag gépp ak jébbulu hmm. xaadi ji manul lu may baxal ko hmm. ndaw nag bu ñëwee du waxee ni góor gi waxee de te lu ngu baax a te nag la góor la xaadi de mën a def góor gi xolam sedd munu ko koo def munu ko koo def munu ko koo def parce que ba tax ñu doy waar lañ waaw li nga xam mooy seen mbir neexut de rek waaw ndax ñe ko ñaari jigéen rek ci kattan buñ toll seetloo ko waaw ah seen mbir yombul dëgg-dëgg yombul hmm. yombul. Hmm. ah yombul dëgg-dëgg. Hmm. yombul dëgg. mooy yaa ahla Tabriz ay yéen ñuñ Tabriz. lakum ñeexal na leen haakimun aji àtte. aw faa ju gën a mat Tabrizan ci raw. xalal hukkaami ci way àtte yi. yéen waa Tabriz gi de. mu ngi wax de joxe ñëpp de da ngaa seet góor gi ni nga xam ne la doon ngàntuloo mm. ak kii ni muy jëfe yëfi yëfi pànk mm. seen hakim bi day mm. jenn benn benn benn xaadimelu ko de maa fii nekkul ci moom min hay bin benn ayib kenn mënu koo yéebalee dara si waa na woo ndare moom nag xismata woo séddaleem xismata woo séddaleem di sa aji jeng la yow man na waaye ci bisu tàggal yow man na daal ci bisu maye hmm. waaye nag buy joxe du séddale séddale mandu de day séddale séddale gën a ne hmm. su du doon loolu de kenn mënu koo sikkalee dara hmm. waaye loolu tax nit mënu ko ñàkk a sikkale <laughs> maa fi nekkul ci moom mi naay bi benn ayi ah si waa am na woon dara moom yow man na daal ci bisu maye xidmatoo séddaleem di sa aji jeng xasattuwoo jublu naa ko mm-hmm. wasay ak góor gi maa góor gi ñoo fi dikk ñoo bokk dikk mm-hmm. naf xëy ñuy sàkku mm-hmm. din kottiteel bant la ñaal ko maasaala bant boobu mosul dañ mas doo sant lu ñu gësal man ak sama borom kër ñoo ànd ñëw ku nekk soxlaam kenn ku nekk bëgg mu dimbale fa mu dal de wëral Ablaye xaw góor gi. Mm. waxat naa la tamit góor gi am na. Mm. min jalwaawu ci mayam. Mm. tafsisan jagale. wa tamyisan ak jàppe. léegi wax na dana seddal xala góor gi. waradani mu bama. ah yaba ma gën a sooy man. min saa yi min ci aji seenu. barxan melax xafaa góog mel xat na. xafaa yàqu. bokkut ak xafiya su fekkee dafa xiin noonu ñaare nawet xëy mm. bu amee sero guddi lay neex a seetlu mm. boo taawee nga jàkkaarloo da ngaa sero xiin yi muy dem melax yu leer yu ndaw ci pegg sero mm. pegg sero xiin bi nii melax yooyu mooy tudd façon melax yi woowu mooy xafu seetlu nga ko xafaa yàqu bokkul ak xaf yee yàqaa ah, bokkul de waaw ah. façon melaxin boobu mooy xafu barxan melax koo xam ne xafaa mel xat na fii soori tëmmuus ci weeru tëmmuus tëmmuus mooy weeru yooliyu xam nga ci sayfu lay nekk sayfu buy ci ñun séeréer la bu dee ci yenn barab yi nag duñ caa seenu taw dama mel ni kuy seenu xiinu maarif mel ni bu doon ñun loolu lañ wax kaan ni kaan na woo dafa mel ni xaadi ji daal lam yëg rek xamul ne am nii gi nga xam ne mm. la xantu sa sana mm. e da say xa gile góor mm. alaraji saraja si moom xamul ne li góor gi wax ba mu naan ko kontaan naa baal naa la man maa xayal góor gi wax loolu yëpp ko woo ci man muy jëtaral keneen dema ko waa na ni ak man in surtout bu ma sooboon xaadatu mm. euh, ma bàyyi ko udoo mm. katam mu de ku ñu waree fi ali tibris a ci ñooñ tabris tabris mm. te mën naa ko fay def loo xam ne wax da gàcceem laay da du bëgg kenn nettali <laughs> <laughs> waaw kenn waroon ni mu xamee rek moo ko xamee yàlla ni mu xamee rek moo ko xamee danoo bu baax a baax waaw ñaar képp dee lay waxe in tatuuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu ku ne xam na ne yàlla rek doy na waaye ñi teg te wa jibrilu tegaat te wa salihul muminin tegaat te wal malaikatu bada dalika zahir seetal kattan bu toll nii borom bi wax ñaari jigéen la cee jàkkaarloo hmm. te lu ngu baax a baax waaw hmm. ah, da nga cee xamee wut noonu waaw hmm. ah, te lu ngu baax a baax surtout boo doonee kilifa seen mbir jar tey lool sax tey lool sax jar na ko falamma raa alqaadi ne falamma raa ba gisee alqaadi qaadi istiraa janaanihi ma jàmbaar ak seen qaadi jana bi mu gisee ñii niñ xamee njàmbaar a mahkama bi taxaw bi taw lii ak génn seen niñ mën a alima booba la xam ne an na ko naka moom xam ñu ni ya na tos na ko min ma ci ñoom ñaar bi day ci jàngoro alaya ñu daal di jafe ña faj wa dahiye te ala ji jommale mooy njuuma addahiya bu daal di kat di jommale booba la xam ne daal ah ñii daal seen mbir moom du du mën a yomb tey daal moom jafe-jafe dikkal na ko te ñii al mu ne yàlla na toos na ko bidaay ci jàngoro. Mm. alxayaa bi daal di jëfeñ ci faj. Mm. wa dahyati ak njuuma. Mm. ak dahyaa bi daal di tëdd jàmbale. waa na woo ak naka moom mata manaha waxtu mu maye. ahada zawjayni. kenn ci ñaari way dencante yi. wa tarafa te mu soppat alaaxara keneen ki mooy mu wëññi keneen ki. fi xool ya day ni muraaji fees ñaari loxo kama kaana dafay nekk hmm. kaman di ni koo xam ne xadaa fayee na mu adday na bor bi day ni ci bor aw mu julli al maghrib timit rakaatay hmm. ni muy ñaar Xadija xam ne ñaar ñi de man da jox kenn gi wàcc ki ci des te nee na leen moom du mën te jox kenn gi wàcc ku ci salaw la ca yàqoo naa abal ñàkk wala ñàkk a joxe du yàqu hmm. waaw ndax alalam dem hmm. te daram du rafet hmm. dafa mel ni ko julli tamit muy ñaar rakk timis te wax dëgg yàlla sëddam defu kaana mu nekk kaman di mel ne xadaa fayee mu adday na bor bu dee aw salla wala mu julli al maghrib timis dana day muy ñaar Fatalzama watalzama. Mm. mooy mu mer ñëkkal. Mm. Fatalzama mu dal de mer. watalzama mm. mu mer mooy dafa mer ànd ak ñëkkal. wala mer ànd ak réeru. waxrantama wa bartama. waa mama wa xam-xama. yëpp mu wax lu ler la rek. muhama waxron hmm. tama bartama talsama hmm. ak hmm. talsama mu ne talsama mooy karaha wajhahu talsama mooy atraha ñekkal xar kanamam sëgg yaaran tama bartama mooy xadiba wa xataba wajahu wa xiila maana ihran tama mooy xadiba maa takabburin wa maana bartama mooy xadiba maa ta'abburin gana ànd ak ñekkal xam-xama xam-xama mooy lam yu bayinil kalam mooy waxul lu leer rek ala kulli haal tellement yi soppeeku na murmuri na itam su maltafata topp mu geesoo moom xadiji yam mm. na tan ci ndeyjoor mm. wasaama tan ak ci mu xool ci boor bu ne mm. xane dafa bëgg a def lu mu bëggul nit ñi gis watamal ka aaba tan ngir wana daama tan ak wala méttilu lu ne def na ko jëmm ji ndeg méttilu waa xada mu xarab ya dumm di ŋàññi alqadaa xatte wa mataane boo ak i coonam mu commencé naan lii ku ci yàlla musal so heboo sant de ku ko yàlla nattoo loo mën a def loo mooy ñaan génn ja dafa góor la gën ci yow mbir mbiram xatte dara jarul dugg dara dara jarul dugg si nga dégg maanaam ne kun qaadiyan la takun qaadiyan walaw darabuuka tala kooku la mu doon wax dëgg la de dëgg dëgg mu waxaale loolu waaw bu ñu doon la saadi tala ñu la te doo doo qaadi gi nekk doo qaadi de waaw bu ne boo xoolee la waaye bu ñu la dóoree dana la tee xool tala moo gën ñàkk la fal naan moo gën ñi la fal naan yaa qaadi de waaxada muqaran ya zummu di ŋàññi alqadaa xatte fa mataay boo ak i coonoom wu yuaddidu muy lim limaan di lim limaan sawaa'iboo ay way jaxasoo am wa nawaa'iboo ak ay musibaam muy wax yi ci nekk ci ay danger daal ak coono daal wu yufannidu muy yedd muy ayibal taalibahu aji sakku qada waxaatibahu aji labatan ne lii daal kuy jóg naan nañ ma ko fal xam nga li ngay def wala ku wax man moom laa jëmmal xam nga li ngay def su nata suma tanaffasa topp mu nokkat kama yatanaffasu ni ngi nokkatee alharibu ku ñu rekki nga gis nokkat mel ni kuy ragg ba bàyyiwuñ ko dara mm. ah su ma tanafasa topp mu nokkat mm. kama yatanafasu ni kii nokkatee mm. alharibu ku ñu réegi wan taha ba mu déjjantu ka gis mu fokkat nuuru hatta kaada ba jege yaf daw hoo di ko gàcceel an nahibu déjjantu yi ah ba tuuti kon daal mu demee noo xam du rafet ñi ko gis li ko di ko wa qaala mu ne inna haada lii mm-hmm. la sayun lëf la ajibun lu daa ji yéene mm-hmm. mu ne lii kéemaan la mm-hmm. awul saqu des na ma jam fi mawqifin ci benn taxawaay bi samay ni ñaari fet benn taxawaay ñi jam ci ñaari bal awul samu ndax des na ma waral fi qadiyatin ci benn xatte bi ma la may ni ci ñaari fay benn fàtte mën a cee fay ñaari nit a wuutee ko ndax danaa man xanu biya bu ma gërëm loowat alxas may ni ñaari way xuloo fii jox dëgg borom moo fi moo ñu fi teg waaye ku ñëw ñu kontaan loola kooku duñ ko man de wa min fu ma koy manee wa min ayna fu ma koy manee loolu mënuma ko du rol bu xanan waa ko war a suyee lii la wax summa atafa topp jeng mm. mooy mu gesoo mm. ila haji bi jëm ci bëkk néegam mm. mu gesu na bëkk néegam bi albun fi ku di haji wéyal li ma ari ay hajom ki nga xam ne yu bare bari daal ci moom lañ koy jaaree ci wàlli ji waxaala mu ne ko maa hasa de tey de mu hukk mi de bisu hatte wa qadayin ak hatte wa faslin ak hatte mooy xaajale tey daal moom. Hmm. képp ku fi ñëw. Hmm. na nga ko xamal na ko service bi dafa tëj. tey xamul xàtte xamul hmm. signal kenn daal. Ah, képp ku ñëw daal. xamal ko na service moom tey dafa tëj. waaw ah, maa de tey daal. yow ma bëgg mel ne bisu xàtte. waxataa yéen ak xàtte. wa fas leen ak xàtte ba tey. wa yem taa yéen ak wéyal yem daal mooy lu mel ni. ak jox ni ndigal mu doxal dara mooy signé signé ni daal. hada fii tey yawmul ixtimaam bisu jàqare la hada tey yawmul ixtiraam bisu fay bor la dafa am yoo xam ne da nga war a nekk nit ku doomu dara mën a nekk di ko doxal waaye am na yoo xam ne lu mu def ci yow am loo xam ne doo ko tam hada tey yawmul buxraan yawmul buxraan la bis la bu xam ne docteur yi ñoo koy wax hmm. ci su fekkee ne faj dafa jëfe lool hmm. dégg nga maa dina du baax wala dana ko baax a baax soxante si lool bi war a wari bi la ko hmm. xasa tey yawmul xusraan bisu perte la xasa lii yawmul xusraan bisu perte la hasa li yawmun bis la asibun uraaji jafe hasa li yawmun bis la boo xam ne nu saabu def nañu jot fii ci moom wala nu siib te duñu jot dara tey dama xanaa duñ jëlee ci ñun waaye duñ jëlee ci kenn dara ñu ngi njàmbat li ñu bëri ak si service faari nii noppal ma min haadayni midaarayni ci ñaari bébbantal kat jile seetal loo doxee su ma diggante ñaari waxkat yi ñu ne ñoo bëri wax. waaye nii noppal ma min haadayni l-mihdarayni mm-hmm. ci ñaari bébantaakoor yi le. Mm-hmm. waqatan te na nga daggee lisaanahuma seen làmmiñ. Mm-hmm. bi dinaarayni ci ñaari dinaar. jox leen ñaari dinaar. neen wax ji neen fii. su ma paree topp nga tàggale. ala saabu àndandoor yi ñi fi ñëwoon. ngay ne kenn ne mën na dellu ci barabam. te damay waaw def te na nga tëj bi. Mm. su ko defee nga tëj buntu bi. Mm. képp ku yaakaar ne war damaa soxla tey nag. Mm. xamal ko ne ko dama jàpp. waaw si na nga siiwal ne. am na ko tey daal. yow moom bis la mas moom nga def xañi. nga xam ne tey dama lu mu naqari. waa na xaadi ya xaadi ji. fii ci bis bi. maa ma woon ku ñu jàqaloo li àlla yax doona nii nga dama teewal. ko soo mun ay wéy xuloo. naa bëgguma kenn mu ne faam mana dalde wax amin hmm. alhaaji bu bëkk néeg bi hmm. ala doha ihi hmm. ci ñaanam ba nga yaa bëkk néeg bi nag waaw nag wax nga dëgg de ah ki nga xam ne boo defee lu noonu lu lu doon noonu ak lu dul noonu yëpp mu kañ la kooku du ko lay jàppale daf lay xalaat te nit ñi demee nii loolu la ñoo faral di am waaw ah, fa am mana dalde aminu alhaaji bu bëkk néeg bi xalaat doon yi ci ñaanam yi. Hmm. wa tabaaka muy jooy jooylu nag moom amin bi moom moom moom xaaji bi. Hmm. di bukkaay yi nga jooyee xaade ji. Hmm. naqada topp mu teewalal. aba zeydin abu zeydin. waxeet soo ak jabaram ja. al misqaalayni ñaari misqaal ñaari góor. wa qaala mu ne leen ashadu maa ngi seede ne. inna kuma naka yéen ñaar. ahyalu saqalayni yéen a hmm. ëpp pexe jinne ci bopp yi muy nit ak jinne yéen ku mel ni yéen ci pexe amul lakin li fi nekk ihtarima hmm. na ngeen di hormaal hmm. majalisalu kaami jataay attekat yi waaye nag barabu attekat yi dafa jar bàyyi xel teg yéen ja barab ba laaj képp ku dem da ko war a sàmm donte moom lañ wajtani ba na ngeen teer fii ha ci majalisul kalam puusal kalam way ñaawi wax majalisul kalam lay wax barab yi nu ne la beneen mën a waxee boo xasee ba dikk bi da nga war a sàmmanteeg waxi ni barab bi soxla fama kullu qaadin déet bépp qaadi tabriz la de qaadi tabriz hmm. qaadi ji kat ko lewet la hmm. topp yéen li ngeen ko def hmm. waaye su doon ku leen jëfandikoo doole ah mën naa am yéen kenn leen di gën wala kulla waxtin te du ci bépp waxtu tusma wala dee fi dégg al rajisu ay rajas te du ne wax joo neex ñëpp la sax li am solo rek mooy jub rek ak dëgg loolu mooy loo xam ne foo dem rek man nga ànd ak moom mu faral la war a fare fa qaala gaañi daal de wax la woo ñaal ko ne mm. ko waa ji misluka sa kem man mooy koo xam ne xaje ba hiir na ji yaa man li nga dox mm. waaw misluka sa kem man mooy ki nga xam ne xaje ba hiir na mm. waaw yow yaa man li nga ma li nga dox wasuruka sant la ba wax na ñun gërëm nañ la wana haada ñi buur ñoom ñaar muy abu sayid ak ji wana haada ñi buur ñoom ñaar asalaamaaleykum. wana xaataa ñu buur. waqad hadiya te mbirum xëy joo nañu. bi dinaaree ni ñaari dinaar. abu seydin ak jabar ji jóg. fekk xam nañ fa ñaari dinaar. dégg nga. bu doon léegi. dana mat cent cinquante mille wala mu ëpp bu xaalis dëgg la. dégg nga hmm. ah. rubon dinaar hmm. trente mille francs lañ koy tollale hmm. ah, waas la hmm. yaa ñu jaaral xalfal waali xolu waali ja naaray ni ñaari safara waaye lii nag du dara ci waali ji nag waaw ah, jox na leen ñaari dinaar daal waaye waali ji nag métti loona trop ci niñ waxee ba wëru ko ak niñ jëlee ci moom daal baax na ko beneen yoon